ñu ko gis te la nga xam ne moom la ñu bëgg maanaam ñu jële ko ci bopp conseil économique social environnemental journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy patronat bi ak syndicalistes yi nekk ci conseil économique social environnemental te bëgg ñoo wane fan la ñu fare ñooñee ñoo si des waaye nag ñi si des ñëpp jamono ji la ñu bëgg mooy Idrissa Seck ñu daal di ko fay dàqee yéen kay gi nee na li am ba des tamit am na ab lobby boo xam ne jamono ji ñoo ngi def seeni dëbbal dëbbal ngir nag jël Mansour Faye yóbbu ko ci bopp conseil économique social environnemental wala jël Abdoulaye Daouda Diallo daal di ko fay yóbbu yéen kay gi Seck ak Macky Sall mi nga xam ne seen diggante ba muy tuulee ci tas tasar la jëm Mamadou Sy Albert di analyste politique xëy samp ab laaj nee na Idi ak Macky lan la ñuy joué loolee ab laaj la lan moo tax Macky Sall ba léegi dàqul Idrissa Seck te li nga xam ne moom la ñu fi nemmeeku maanaam ku fi mosaa wax ne Macky Sall du nekk candidat daf lay dàq bëri na ñoo xam ne loolee moo tax Macky Sall daal leen di dàq Idrissa Seck mi nga xam ne nag tey moo taxaw daal di sëmb ndëndam ba pare wax ne Macky Sall mënul bokk ci élection yi lan moo tax Macky Sall dàqu ko loolee ab laaj la boo xam ne Mamadou Sy Albert di analyste politique moo xëy di ko laajte waaye tamit daat nay laajte lan la Macky Sall ak Idrissa Seck di joué ba tey ci biir journal bi moom Mamadou Sy Albert nee na tàqali ko Idi ak sa morom journal bi di Walf Fadjri xëy fësal ci xëtam mu njëkk ne Macky Sall lan lay hésité ci biir journal bi nee na Macky Sall li ak li muy ak li hésité moom moo ko xam waaye li am ba desal leer na ko leer nañ ñi ne bu jekke-jekk dàq Idrissa Seck ñu daal di tàqali ko loole nag mooy dooleel opposition bi ndax Idrissa Seck bu boobaa dafay gën a yokk doole opposition bi nga xam ne am nañu doole ba pare journal bi de la point ñu xëy fekk fa Ousmane Faye man ko wattu sénégalais yekk na musiba ak mbelengaan ki nga xam ne mooy Idrissa Seck ndax nee na sortie bi nga xam ne Idi def na ko ay njombe la ay girawali la lu fi ñor ba ñu koy màcc loole la Ousmane Faye wax ci biir journal bi la point waaye nag nee na Macky Sall na jël ay matukaayam ko bàyyi mu jàll ndax ki nga xam ne mooy Idrissa Seck amul benn njëriñ ci biir benn bokk yaakaar te Idrissa Seck bu ñu ko bàyyee ci biir benn bokk yaakaar dafa yàq déggoo gi nga xam ne moo am ci biir coalition bi am na loo xam ne mënuñu ko nango moom Ousmane Faye ci biir journal bi di sàkku Macky Sall jël ay daana lal ko ci ndodul Idrissa Seck moom Ousmane Faye ñaawlu na bu baax a baax Idrissa Seck mi nga xam ne song na maître Abdoulaye Wade yekk ko musiba a baax Idrissa ko présidentielle 2024 nee na jamono ji am na ay commission yoo xam ne nit ñi bëree wuñ fa noonu fu si mel ni commune bu Médina ak Colobane Fass Gueule Tapée yéen kaay gi nee na mbindu mi juróom benn fan ci weeru avril la ubbi jamono ji ay fukki fan rek moo ci des journal bi di Rewmi Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu journaliste bu Walfadjri bii di Thioro Mandela te ñu koy tudd ci lu jëm ci wàllum toppoka ci Facebook bi mandat nañu ko dépôt Walfadjri yéen kaay nee na jege ñaale yi Thioro Mandela jamono ji ñoo ngi sàkk ñu daal di koy jéggal ndax nag dafa ëmb te ëmb bi jamono ji sori na lool journal bi nee na bëri na ay réforme ay yeesal yoo xam ne gouvernement bu Sénégal waxoon nañu ko ci lu jëm ci wàllu wàllum yoona waaye nag ba léegi furasali xëddeen yéen kaay gi di Rewmi Quotidien nee na Sénégal ñaari korité tey jii si ajuma ji am nañuy wari suba ci samedi ji am nañuy wari li am ba desale grippe aviaire bi ginaar tax na mu daal di manqué bu baax a baax ci marché bi gars yi nag jamono ji daw nañu wuti li nga xam ne mooy ndawal gi am na ñoo xam ne ñoo ngi ci ndawalu xar gi am na ñoo xam ne ñoo ngi si ndawalu nag bi la ñu jëm journal bi nee na kilo bi bu dee xar mi jamono ji manqué quatre mille huit cher na lool dee nag 3800 yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu ñaari korite amatina ajjuma ak samedi yéen kaay gi de Le Quotidien nee na koor gi bi ñu koy doora maanaam ñëpp a àndoon ñëpp a àndoon unité moo amoon bi ñuy door koor gi waaye nag ba ñu demee ba sa cëppandaw ga lépp a yàqu ndax tasaaroo moo mujjee am li am ci journal bi du sunu lamb mooy combat Balla Gaye ak Eumeu Sène bi nga xam ne gars yi ñoo ngi koy laam-laamee te ak seegul Eumeu Sène ma ngi avertir Balla Gaye numéro 2 nee na ko 3-0 laa koy def loolee dafa te li ma mën lépp ci combat bi dinaa ko def ngir daan Balla